ñoo ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci émission bu mag bi ñuy def euh, chaque jour tey nag ñu ñëw doxantu si ba Thiès dala si benn ndaanaan bu mag bu ñuy wax MC euh, MC ñu lay nuyu. waaw sama xarit bi maa ngi lay fay euh, da ngaa tënk wax ci da ngaa waroon wax Univers TV ah dafa yaatu na yaatu na yaatu waaw maa ngi lay fay di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp nag. képp kulli kuy seetaan MC di fan si MC di bëggee MC maa ngi koy ziar di ko ñaanal boo demee nee directeur bi maa ngi koy nuyu dégg nga. incha allah euh, MC ñu bëggoon a xam lan moo la dugal ci wiiri wiiri. waaw wiiri wiiri bon bi ma ciy dugg man déjà euh, ñoom sama kër lañ daan nekk sunu kër fekk sama grand frère bi euh, ki sama nijaay sax daam seen dix mois moom ay xaritam lan woon et ñu dem nag ba gaañ noog man maa maa leen daan ataayaal boobu maa ngi doon booy xam nga daan leen ataayaal daan leen nekkal ci lu ñu bëgg daal ci laa leen daan nekkal ba ni ma ni ma dama leen taq daanaka waaw pour gàttal dama leen a taq yaa ngi dégg taq googu nag moo waral ma nekk ñoom boobu ba tey waaw. d'accord ñu gis nga nekk gardien euh, ci euh, kër Soumboulou ci wiiri wiiri wi euh, ndax théâtre bi am na ay. am na ay ay difficultés yu ci nekk wala. waaw ñu gis ma ma nekk gardien di gardien bu mat gardien yaa ngi dégg est-ce que di ku mën liggéeyam ah? ma koy toj àdduna yëpp bëggal ma ci loolu ma koy sante waa monde entier waaw affaire bi nag waaw ñu ngi sant rek. Euh, MC à part euh, théâtre bi ngay def est-ce que mën nga ñoo ñëwaat ci sa personnage euh, kan mooy MC. waaw mais MC moom. MC moom da di booy boo xamante wax dëgg yàlla macha allah amul problème et puis si seen da koy def ni boppam sekk naag ñëpp jàmm te kenn mus koo dégg ci lu ñaaw wala loo xamante ni du neex waa àdduna parce que MC MC àdduna la doonatul MC boppam MC àdduna la kon MC moom wax dëgg yàlla daa war di continuer sedd rek waaw mais kenn du ko yem nag. buñ ñëwee ci sa parcours lan nga ñu ci mën a wax. sama parcours. Euh, metti na loolu metti na trop trop trop trop trop mais teewul ma bàyyi parce que lépp loo bëgg ak lépp looy def lu nekk mu nekk sa xol sax sa xol non non loo ci góobee rek ah gar ko parce que sama parcours xam naa ni booy yu bëri ci aar buñ ko doon def non buñ ñëwee ba ci xaaj ba sax duñ ko eggalee parce que def naa parcours boo xamante ne macha allah c'est dur. te difficile na trop. léegi bu ñu bu ñu la doon laajaat dañ lay laaj ne la euh, ci aar bi lan nga gën a dund mu metti la. xamante ne boo toogee boo xalaatee rek dalay lay ci yàlla làmb lan nga gën a xalaat lu la metti maa ngi sama parkour ba tey yaa may dégg est-ce que sama parcours laa nekk ba tey hmm? euh, sama parcours metti woon na metti goo xamante ne euh, booy yii nii nii nii nii koo ci woowoon. li ma def sama parcours duñ ko def parce que dund naa lu bari sama parcours ci aar metti woon na loolu macha allah mais nag dem nañ ba commencé sant yàlla dem nañ ba naan MC ngi nii wala MC moom la wala du moom loolu sant yàlla dikkal fi nga dikkoon sànq. alhamdulilah mu metti la ci aar waaw aar moom fi mu toll nii moom la ma daan dund mu may metti moom yi romb na bu yàgg waaw la ma daan dund mu may metti ci début bi la woon waaw. bëgg am tur te mënoo am tur mu dalay jàpp parce que da ngay gis say moroom euh, ñi nga xam ne yaa leen daan jiitu ah ñuy feeñ di toj ah te yàlla njëkk a théâtre ñuy feeñ di toj mënoo feeñ ba toj yaa ngi dégg mais nag ba ma feeñee ah toj ci laa xam ni ah neex na rek cim xam nga affaire moom wax dëgg yàlla bu say morom di feeñ feeñoo du la neex doo ko wax mais la neex nag boo demee ah bay feeñ di toj sant yàlla waaw di encouragé samay moroom yooyu di feeñ di toj ah di gën a encouragé sama bopp di gën a liggéey waaw. macha ce que yaa ngi ciy gis sa bopp ba tey. ah waaw pourquoi pas ah maa ngi ciy gis sama bopp de xaw ma nag ñeneen ñi. mais yaa ngi ciy gis sa bopp léegi naka nga gisee sa bopp te yow gisatuñ la soleil levant te dégg naa ne sax dañ la cee dàq. booyoo samay élément la. yan ñoom. waaw samay élément la waaw. man maay takk capitaine man MC bu ma ko taggul kenn du fu bal. MC li nga wax garaaw na de. da bëgg moo xaat ko ah da ngay MC nga ne euh, gisatuñ la ci ci soleil levant gisatuñ la nga joué nga ne dàquñu la ba pare nga ëlbatikuwaat ne euh, booy say élément lañ foo ko teg. booy mën lañuy wër capitaine man MC bu ma ko. mais nañ dañ laa dàq. waaye xanaa dégg doo ma déglu yow capitaine man ko taw kenn du ko takk. ngeen tax gisatuñ la. noo du dàq xam nga yenn yi ah ñit ñi dañuy réeree mbir ci lu bari man ñen ñi dañ may interpréter sax naan ma mais MC gis nañ seen affaire bu bees waaye mais mais gisuñu la ci affaire bu du noonu wiiri wiiri ba muy départ ah ñun génnuñu yaa ngi dégg mais affaire bu day dem day yaatu série yu ma day dem di ibbeeku di ibbeeku di ibbeeku di ibbeeku ba ñëpp ñëw mais du càggani gisoo Baye Fall ci BA bi rek wala gisoo MC ci BA bi rek ah nga bëgg ni non lii rek lii la non non moo tax aar euh, dafa garaaw ku ko xamul rek mooy laaj te bëri na ñu xamante ne ñu ngi théâtre sax te xamuñu aar est affaire bi day ibbeeku mais du tëju yaa ngi may dégg est-ce bi laa day ibbeeku mais du tëju waaw doon koy ibbi buñ koy ibbi ñoom MC ñëw ah ay ñoom Baye Fall ah ñeneen ak ñeneen ah kàppoo capitaine bi nag war a ñëw nag football match bi mu jeex. ah man daal dama doon dégg ñu ne MC dañ koo dàq. man daal loolu laa doon dégg man. dàq man non man booy man Soleil Levant duñ ma dàq Soleil Levant déggoo li ma la wax hey Soleil Levant kenn mënu cee génne MC ci àdduna parce que MC mooy xolu Soleil Levant waaw maa la wax loolu. ñoom ñëpp est-ce que am nga ak ñoom relation bu bu bien. Hmm, waaye déggoo sànq da nga wax man la booy samay élément la mais moo mel noonu doo jubboog ñëpp. non man moom wax dëgg yàlla ñëpp samay xarit lan waaw damay geer nag mais ñëpp samay xarit lan waaw. MC bu ñu ñëwaat suñu beneen question bi ñu lay laaj est-ce que yaa ngi dégganteek ñoom ba tey nii. waaw may woo man waaw man moom dañ may woo franchement samay gars lan samay waay lan waaw wax dëgg yàlla samay élément lan daal. ñoom ñoo lay woo wala yaa leen di woo pour bëgg a waat pour bëgg a feeñaat. waaye yow man yow fi mu toll nii dama lay wax leen man feeñ ak ñàkk feeñ ci àdduna laay yemale parce que ba ma koy bëgg yaa ngi dégg sama première question maa la ji wax mais bàyyi woo ci xel dan naa ko bëgg ah di wër bi ah mais am naa ko macha allah buñ ma woowee ma ñëw tourné ñu fay ma sama xaalis ma toog jàpp sama ñàmbur wéy la maal ah mais ay woote non duma ko def franchement nga lan nga fa gën a dund loo xamante ne neex na la trop boo toogee di ko fàttaliku di reetaan sax. waaw bari na nag ndax bêtises yi ma defoon daa bëri de. waaw bêtises yi ma def ci kër ga bëri na bëri goo xamante ni wax dëgg yàlla yenn saa bu ma ciy seetaan yenn extrait yi sax damay ree muy ba ma iree ñaari gel ya teg la samay tànk ngarale bi ngarale bee teg kii tànk teg kee tànk yaa ngi dégg ba pare nag di tëñëx gaa yu bëri bàyyiwuñ ci xel. mooy bi ma naan MC avec MC mooy ba may génn sama son bi. ba may génn sama son bi boobu ci son boobu nag doon na loo xamante ni daf maa may lu bari ba may génn di ci ah naan li MC avec MC jusqu'à la mort boobu laa génn xotti sa pain wu xotti sa pain bu xottee koo ma ñawal la ko. yaa ngi dégg jékki-jékki Zozo ni teng leng yaa ngi dégg fi ma toog maa ngi neen i déggaat sonné bi ni teng leng mu ñëw ibbi ibbi jàkkaarloog moom naan ko monsieur lu tax bi ngay ñëw tàgguwoo ma. <laughs> loolu ah dafa xamal loolu faj na ma faj goo xamante ci àdduna ak bi ma naan ko dama laa géntal bu ma sañoon nga saraxe boobu damaa bëggoon continuer ci série bi yaa ngi dégg parce boobu maa ngi koy wër mu ni ma gardien buy delloo bay gént MC bàyyi après nan régler suñu problème te ñun ñaar euh, dañu doon gaañan goo xamante ni da nga koy xool comme am nañ complicité complicité boo xamante ni ci biir série bi da nga koy xool rek xam ko parce que daf maa xam ma xam ko waaw. da ngeen am complicité. waaw non su may ga déggul ma su may élément lan. macha allah yow. MC quels sont tes projets. nag. lu ma mën nga ma lan say projet. waaye lu ma mën nga ma làq nga koy waxaat. samay projet mooy bon ah di gën a liggéey rek ba mën a investir bu baax a baax ci leneen ah di jàpp fii di jàpp fee di jàppale doomu aadama yi loolu de moom moom xam naa ni moom bu ma ko mënee. soobee suñu boroom bëgg naa koo def di jàppale képp ku ma tàllal loxoom ma jàppale la ah jàppale keneen ak keneen ak keneen ndax wax dëgg yàlla ñàkku fi mais nag yàlla yàlla xeeb dool yi waaw loolu sama projet woon. looy tàggatoo. ah li may tàggatoo mooy ah nuyu ñëpp rek cum nuyu nuyu nuyu leen nag yéen. univers ah, univers info. waaw booy di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah di bëggee waa univers info franchement lii rafet na nice na parce que bu du woon yéen mu ñaaw ah parce que internet bi bu du woon sax site internet yi mu ñaaw di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmm ak salaam ngeen jiboo yéen ñëpp seen biir di bëggee sam waay sama xarit faal yaaram ilalaay faal bay faal sam waay la kooku bu ma waxee ci moom ah war naa wax bu ma waxut war naa wax mais damay bàyyi mu sedd rek li ci xol yi yëpp xam nañ ko ah Daba jaw sama élément la kooku moom ah, macha allah rafet na daal Daba di nuyu sama yaay samay rak sama waa kër di nuyu ñëpp waaw di jàll nag sama sëriñ Pape Malick di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana